jotaay bi dañ ko dañu woowoon journalistes yi pour ñu waxtaan ci mbiri euh, li ñuy wax euh, Sahel aviation mu nekk benn entreprise boo nga xamante ni rakku président de la République Aliou Sall moo ko créé ñun nag dañu gis kayit yi ñu gis ni rakku président de la République actionnaire yi moom mi ngi ci am vingt cinq vingt six pour cent ku ñuy wax Patrick Correa am ci vingt cinq pour cent beneen entreprise bu ñuy wax aéro aéro maritime am quarante neuf pour cent ci action yi ñu xool comme président Macky Sall dafa falu mu li ñuy wax. Euh, li ñuy wax OFNAC ak CREI ni dafay xeex ger te moo mënu woon du protégé kenn ñun ñu saisir OFNAC ak CREI pour que rakk président de la ñëw expliqué wu ci affaire boobu. bu ko deful dañuy wax ni président la Macky Sall kon dafay dafay def xeej ak seen dafay protéger ñi far ak moom ndax loolu moom commencé na ko parce que ñëpp seet nañu ñi nga xamante ni euh, Cour des comptes leen pour poursuivre wala ñi nga xam te dañoo def jëye. ñëw tafu ci moom jàpp leen waxu leen dara képp ko jàppul ko képp falul ci képp kom am ci ne àndu la ak moom mi ngi lay bund xataal di la néewal doole di la tëj wala mu lay jéem a toroxal loolu nag Sénégal mënut a doxe noonu Sénégal ñun ñëpp ñoo ko moom te ñun ñëpp dañ leen a war a yemale o dañ leen mer war a mettre au même pied d'égalité loolu rek moo tax tey ji ñu saisir tey ji euh, euh, OFNAC ak CREI pour que justice soit faite pour que mbir mi Sahel aviation boobu noonu rek am président Macky Sall créé ñu leeral nañ ko parce que Sénégal tey jii Sénégal Airlines daanu na mënuñu amul sax compagnie aérienne rakku président Macky Sall di permettre ni dafay créer compagnie aérienne loolu mun xel mënu ko xel mënu ko dégg dañu bëgg loolu ñu leeral ñu ko vraiment loolu moo nekkoon li nga xam moom la ñu wax ci mbiru Sahel Sahel aviation bi euh, pour nekkoon premier point conférence. président Macky nee moom dafay ni 2016 ñun duñ ci dem te sénégalais ñoom ñëpp dañ leen wax nañu boycotté référendum bi ndax référendum bi yàq xaalis la puisque moom nee dafay dem ba 2019 kon jaratul ñu fi ñuy yàq xaalis beneen bi mooy dañu ni dañuy woo sénégalais ci benn rassemblement national bu mu boo nga xamante ni dañuy woo sénégalais yëpp ñëw teew fa ku nekk mën a joxe sa xalaat par rapport ak mandat bi ak président président Macky Sall li mu def de li mu ñun li ñu gën a metti mooy ñu jël réew mi jox nit koo xamante ni du respecté engagement du respecté kaddu te nit kaddu rek la am Macky Sall tey ji mënatul wax sénégalais lu ñu gëm parce que aujourd'hui li gënoon a tax nit ñu fal réew mi mooy affaire mandat bi tey tey ji dellu na ci ginnaaw def na reculade ndax na sénégalais tey Macky bu taxawee ni suba dina wàññi ceeb wala dina wàññi diwlin bi kenn du gëm ndax tey ji wane ne nit ñi ni moom du Sénégal et à partir de 1er mars 2016 dañuy wax ni la présidence de la République du Sénégal sera vacante Sénégal Sénégal dootul am président et il faut que ñu nag dem élection